fi sama waajur andi woon may jàng alxuraan jàng fi tumuranke bien que mënaloon na boppam waaye daf maa andi boole maag góor bu baax Serigne Ahmed Sakhir Lo mu yërëm ñu looloo tax bi ma fi jógee ba léegi ma jël sama alal di ko dugal ci dundal xale yi tey jii dama leen defal benn ndogu waaye loolu ëpp na ñaar fukki at chaque weeru koor ajjuma bu ne maa leen di jox ndogu Touba laa ko daan toggee ba tey jii léegi ñu andi ay toggkat ñu di ko togg fii muy lu mat ñetti junniy xale ma war lu leen tamit ndekki chaque jour boobaak léegi léegi mat ñaar fukki at fanweeri at loolu nag waxuma ko pour ndamu ci waaye dama koy wax pour ñeneen dégg ko di ko def ndax dañ ne ad daallu alal xayri ka faa'ilihi tegtale lu baax yàgg ki ko jëfa am solo yéen bokk kon nag maa ngi ñaan képp koo xam ni man nga ko daara ja nga dendal nga di ko dimbale loo man surtout ci weeru koor léegi nag xam ngeen ne le 24 février le 24 mars dañuy dem élection présidentielle ñu war a jël sunu alal sunu doole sunu baat dénkaane ko te gis nañ ne depuis 1960 ñu ngi koy dënkaane mu jural ñu lu dul yàq suñu njàng yàq suñu liggéey andil ñu fitna joo xam ne ni kenn xamul foo koy nettali ay bakkan dee ci ngeen gis nag ne politiciens yi bu ñu demee ba jaaxle rek wala ba déggoo fay lépp waaye dañoo war a xam ne fàttaliku li alxuraan di wax wattaqu yawman turjaxoona fihi illallah su ma tawaffa kullu nafsin ma kasabat ñu fàttali ko bis boo xam ne ni ñëpp danañ dellu ci kaw ci yàlla mën nañoo def leen neex ci àdduna waaye duñu rëcc léegi nag ñun ay jàng ay liggéeykat lañ jàng lañ xam dimbalante jàppalante wut ay liggéeykat di leen jàppale ba ñu tekki di dimbalante suñ biir su fekkee nag ñun liñ daan wax dëgg la ci ñun muy ñun waa daara yi wun jàngale jàng liggéeykat yi ba ci nekk bitim réew kon bu leen jëlati seen i dooleeg seen alal ak seen baat ngeen di ko dénk koo xam ne nii suñ ne la woon dénk ko sa alal doo ko ko dénk su ngeen leen ko dénkee nag lu ci am da ngeen xam ne baye boo ñu nangu nag ne ndegam 1960 ba léegi ñoom ñoo ko yor soppikuwul su leen ko joxaatee feeg téeméeri at danañ ko yoraat te loolu li muy jur ak yàq rek lay jur te ñun liggéey la ñuy def ndax alxuraan moo wax ne i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minuuna liggéey leen yàlla dana ko gis ak yonent bi maa ngi leen di gërëm leen sant di leen wax yéen ñëpp le 24 mars ngeen dem woteel si yokk ba yëg ko daara ji tool bi penc mi ndax ñëw nga sa kër te it toogoo bay bëgg li ngay bëgg rek di toppatoo daara ji walla di toppatoo ñooñ daara yaakaar naa sa yëngatu sa liggéey sa lépp ak li la yàlla wërsëgal yaakaar naa ni daara yëg na ci boppam gis na ci boppam te yemale woo ko rek fii nga xam ne mooy daaray Koki nga jànge woon fi xamewoo ci fii xamewoo ci feneen yow daara ci boppam moo la ñëw moo la yitteel yaa ngi ciy dox di ci wax di ci def sa alal kon nag lii yéemawul um, maanaa ah nun waa kokki da nun yéemuñu te lépp loo àggul tamit ak foo àggagul la ñuy wax waaye lépp luy teraanga te yàlla di ko jox doo mbi mbinaa fan yi séentu nañ ne yow teraanga joojee dang ko am ba am lu ko ndax euh, waxuma la yar bi ak jom ji ak siggil gi nga xam ne kii siggil nga réew mi siggil tamit doomi daara yi ci fànn yëpp li liñ jàkko liñ jàppoon bu jëkk suñu yeneen mbokk yi liñ jàppoon bu jëkk mooy ne géew bi moom doomi daara bokku ci yow nag loolu yaakaar naa weddi nga ko ba mu set wecc yaa ko jëkk bi de yaakaar naa ba nga xalaatee ba bëgg mairie Kaolack boobu rek te mu doon lu jafe te jàppoon ne loolu mënut a nekk waaw waaw ak ak chambre de ak yeneen ak yeneen kon nag lii tamit loola comme comme comme rek nag ah sëñ bi daal lim lay soñu te di ci ñaax mooy ak yokk yokk góorgóorlu ak yokk fulla ak ak ak ak fayda yokk sa taxawaay ndax soo amee ndam daara moo am ndam soo amee ndam daara moo am ndam doomi daara yi ñoo am ndam kon nag ñu ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla sa yéene ak sa bébét yal na la ci yàlla àggale te nekk ci yoon wu sedd guy. fii dama fee sañ a def lu ne sëñ bi moo ma ko wax dama fee sañ a def lu ne politique sañ naa koo def ci biir ci digg jàkka ji lu tax ndax duma fi wax lu ñaaw duma fi def lu ñaaw. te politique dañ ko aayal waaye aayul lañ fay def moo aay dama wax gaa yi ma leen julli am na fa alquran wax ne fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim sahuna allazina hum yurauna wa yamnaun maahum yàlla moo ne man dinaa mbugal yow man xëy am jullikat yi ñi nga xam ne bu julli dañ ciy caaxaan allazina yuraanu di ci di ci njistal lépp lu baax luñ bëgg a def nga di ko tere loolu damaa yaakaar ne sax du julli lay alxuraan doon waxal politique la doon waxal ndax julli mooy ñaan te politique tamit ñaan la jëlal affaire bi rek nga traduire ko danaa mbugal politiciens yi yi nga xam ne nii suñuy politique dañ ciy ngistal di tere lépp lu baax lu nañuy def xam nga ne nañ waxante dëgg waaye politique Sénégal yii loolu la ñuy def ngistal ak lépp lu baax lu nit di war a def ñu yàq ko loolu nag moom fitar ñi ko fexe leen ba ba du ma ci am gàcce rek